de wàccuwaay bi kawe lool te sëñ Touba moo ni woon dee leen jàng alquran ci la yàlla di xame ni ci ñoom ñoñam ngeen bokk kuy jàng alquran yàlla xam ni ci ñoñam nga bokk dee leen jàng xasaayit ci ngeen di xame ni ci sama ñoñ ngeen bokk kon kuy toppatoo xasida di ko jàng dangay bokk ci njabootu sëñ Touba maanaam màggal euh, màggal xasaayit yi sëñ Touba yi wartiif la dafa war ci bépp jullit wartam ci bépp taalibib murit mu xam ko ndax xasidaa ngi faj aajo yi yoo xam ne sax kenn mënu la ko wax xoola xasida ak wasilatu ruboox sëñ Fàllu moo wax ni ku sa aajo fajuwul ba noppi sax doo ko am kon Mbàkke jërëjëf li ma a gis lépp gis sëriñ nee na li mu li ma a gis lépp gis naa ko. yéen moo gën a dégg lépp dégg naa ko ci yéen tey jii bu ma sa bu ma bu ma sañoon ku di murit déglu ci kaw suuf kuy dund boo sañoon sañ jéetaay murit dana ci bokk ma wax wax ci wax ci wax ji wax ngeen ko ba noppi waaye loolu mooy mooy mooy mooy mooy xasida yi xasida yi xasida yi mooy sañ bi xasida yi mooy sëñ bi ku bëgg a xam sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi ku bëgg sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi fonk xasida yi de ku wut sëriñ bi da ngay ne fonk xasida yi sëñ bi mooy sëñ mooy sañ bi xas yi moo nekk bi moo nekk diggante moo borom digg ma yonent bi digg boppam xasida yi mooy sëriñ bi kon liggéey bi réy na liggéey Sëñ Tuubaa réy na lool ndax luy luy lu baax rek lu baax rek nañ ca nekk nekkal ko ca mu dib liggéeyam waaye xasida yi nag mooy liggéey bi mooy mooy moo jiitu ci liggéey bi moo jiitu ci liggéey bi bu doon xare bu doon bu xare ña ngi xam ne ñoo jiitu xare bi topp seen gannaaw ñuy jéeg jéeg fu xarab fu yéefar yi toll bu fekkoon noonu ab xarit la kon jàngi xati fonk këti xasida yi xam xati xam xati xasida yi bëgg këti xasida yi liggéey yi kon ñooy jiitu ci kanam xasida yi mooy sëñ bi buñ ko xamee ak buñ ko xamut xasida yi dafa jar jóg jàngi xam-xam am xam-xam ñëw ñëw nag ñëw nag nekk ci biir xas yi di liggéey xasida yi dafa ja dafa aajo jàngi xam-xam ba am xam-xam ñëw nag jëbbal si lépp xasida yi nekk ci sëriñ bi loolu loolu loolu laa joon dégg ngeen wax bi loolu loolu laa joon benn murit bu ne bu xamee lu xew dafa war daa daa na jóg jàngi xam-xam jàng ba ne ar dellu si nag nekk ci xasida yi nekk ci sëñ bi dégg ngeen wax loolu la laajoon loolu la laajoon jërë ngeen jëf damay damay yéen yéen yéen dama leen di firi damay firi rek waaye def ngeen lépp waaw nii rek la loolu loolu nag du bee sëñ bee bi moo leen ci loolu moo leen ci moo leen ci nargan ci wommat loolu du yéen sëñ bee waaye wax baa ngoo xel loolu loolu loolu loolu mooy dama ne am na góor gu bari xel ba muy gënee di gone di ndaw ñuy waxtaan di déggoo lool bu waxtaanee baag si si mbir di ma ne ah wax ñu ko waaye diw kooku daa xamul li xew rek mu ne waaye bàyyi li nga wax xam li xew a jafe <laughs> waaye yéen ñi yéen xam li xew <laughs> bu ngoog de noonu la de kon jërëjëf jëf